jaa ngeen sama gaa yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar vidéo bi nag guddi na presque que mooy jot na mais dama tëdd tëdd sama xol bi daal naqari ci senegal ak ni ñu ko bëgg yore yoree man dama gis ni daal dafa am groupe bu cent personnes ñu jàpp en otage te ñu dañu wëndeelu mel ni ñun dañoo nekk ay ignorants yu xamul dara. dégg naa nag que Ablaye Wade ak Abdou Diouf dañoo ànd ci mbirum dialogue boobu man nag sama position lenn la dialoguewuñu ak Macky Sall bëgguñu dialogue élection lañu bëgg parce que nag doo ñu nekk di ñu wéq di ñu mugal di ñu dóor di ñu tëj di def lu la neex desul lu dul ay élection nga taxaw fi naan dialogue waxtaanuñu bëgguñu waxtaanuñu soxlawuñu ku ñu amnistie parce que defuñu luñ fi luñ ñu fi am amnistie naa fekk yi doon toog nag naan Ousmane Sonko dafa war a wuy ji nangam ak nangam mooy taal dëkk bi jeunes yi dee nañu tey nag war ngeen am lu ngeen wax yenn nag ñaari président yooyu di Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade man dama jàpp ne du ngeen référence xaw ma nag ku leen di def référence parce que bi ngeen toogee seen nguur dix-neuf ans Abdou Diouf xaw ma vingt ans SDF la. amul fii kër Sénégal te yow nga ne say waajur fii lañu soqee ko France nga dem Ablaye Wade tam bi nga wàccee tam noonu nga def kon yéen amul leen benn leçon de morale bu ngeen war a jox nit ñi Ablaye Wade nag sa doom rek la ñor parce que wane nga ko PDS bu dul Karim Wade di doon keneen mais yéen xam loolu yéen la suñu yoon nekku si en tout cas sénégalais duñ ko nangu fii ngeen di wax waxu report élection ba ñetti xale dee si lan ak seen député yooyu noonu nekk fële nga xam ne assemblée ay tappalekat yu bon yi duñu xool seen diggante ak yàlla duñu xool askan yu leen fa yóbbu mais lu neex Macky Sall la loolu lu neex waa kër loolu ba kañ yéen nag du yéen ñuy wax lu ñuy def dialogué wuñu tey dialogué wuñu suba bëgguñu dialogue élection la ñu bëgg yu leer yu transparent jaa ngeen jëf sama gars yi lii laa amoon lu may wax ndax daal wax dëgg yàlla Sénégal moom waruñu taxaw nii di ko xoole rek donc ni wax rek lañ ci mën mais danañ wax ba keroog muy baax yaa ngeen jëf